parti bo gis dafa laaj yokkute ci mbirum militant réunion bi du réunion Thiès rek de dafa nek réunion nationale quarante cinq mo nek Sénégal quarante cinq yépp ñëw nañu amul ben département bu ñëwul biñu ñëwé nak dafa nek réunion séminaire bu ngeen gisee suñu man nag xam naa aw maracin xamna ma naa am nañ suñu badge amna suñu classeur amna continue bu ci nek waxtaan nañ ci mbiru parti bi yépp nan la ñu koy massifier nan la ñu koy financer yu yëpp wax nañ ko loolu moo ñu indi tey ci Thiès voilà léegi nag ñoom li ñu wax fii dañ koy démultiplier bu ñu delloo ci seen base liggéey bi commencé jumtuwaay yi nga xam ne war nañ leen ko jox yëpp pour ñu commencé jot nañu ko dañuy dem rek ful ko buñ ko fulee tas ko ci nit ñi nit ñi commencé di ñëw ci parti bi li ñu wax fii mooy cellules yi war nañ leen installé cellule nag boo ko seetee mooy diggante juróom fukki nit ba téeméeru nit boo nekkee ci benn gox am na cellule yoo xam ne am na nu ñuy toll war nga mun a seet kan mooy ëmb nag cellule yooyu yëpp maanaam bu ñu jëlee par exemple ne euh, Wakhinane Nimzatt bu ñu amee lu mat ñaar fukki cellule war nañu seet kan mooy yore Wakhinane Nimzatt léegi nag bu ñu boolee communes yi nekk ci département Pikine yëpp ba ñu am seen section ñoom. war nañu seet nag kan lañuy jox département Pikine fii mu nekk nag am nañu déjà ay nit ñoo xam ne ñu ngi def liggéey boobu te ñu ngi koy def liggéey ñu ngi koy def nu rafet donc dañu sukkandiku ci ñooñu pour fexe ba liggéey bi aw yoon ñooñu nag nga gis fii koo ci gis rek responsable nga fi nga jóge ñoom ñooy jàpp ci liggéey bi ba liggéey bi sotti non xam nga tey moom foo laal rek mu ngi métti foo laal mu ngi métti hein boo naree nag di lim fi ngay laal muy métti mais doo ci génn demal ci jàngalekat yi jàngale wuñu parce que am na am na am dañu dañ ko signé won ak nguur gi ay accord mais nguur gi topp ko demal ci ndongo yi xale yi ñoom dañu ko bañ sax da dañuy jàppale école yi nguur gi daf ne ko am sa bac lay yi am bac ñu ci public bi ñii ci privé bi mais xam nga boo nee privé nit ki da nga koy fay mais toog lu man ñaari at ñetti at dërëm joxuñ leen ko te xale yi di commencé jàng mais am ci école yoo yoo xam ne ñoom dañuy génne xale yi xale yi nag ñoom ñoo porté combat bi ñoom ci seen bopp ñoo génn wax ne ñii tant que fayu leen leen di ngeen ñu gis ñun parce que bu ngeen leen fayul ñun duñu jàng donc wax naa ci jàngalekat yi wax naa ci xale yi demal ci nekk ci kër docteur ñoom itam génnu nañ fi def marche syndicaliste yi gis nga ngeen leen barki démb bëri na foo xam ne loo fi laal rek mu métti loolu nag li ko waral mooy nguur souvent day dige pur nag moom du dugg ci loolu day seet lu mënul mu wax ko bés bu ko waree def mu seet ne defin bi jafe na bu ko defee nag mu bank ay loxoom wala mu waaf te loolu du ko ci yow wax nga dara mais def ko boo demee ba ne mais bu ko wax comme rek comme élection ñu ngi ah fi mu nekk mi na ci hein? mérite la mérite la opportunité parce que opportunité yow nga dem sa morom nañ fa dem mais li tax mu mérite mooy ñun a am li tax ñu am représentativité bi ñu am assemblée parce que wu mbir ne assemblée ña fa ëpp doole mooy benn bokk yaakaar mais ñoom cëru nañu parce que jël nañ Ablaye Wilane jox ko poste bi mënuñu jël ñaar ñi deuxième doole ba du sax ëpp ñu fa ëpp ñu fa doole sax parce que ñoom fukk ak juróom ñent la ñun ñu fukk ak juróom ñent wante comme ñoom amuñ groupe parlementaire rek ñoom la ñu njëkk xalaat ni ñun ñu jox leen ko ñoom ne ah benn poste bi des jël leen ko yéen mais jubóowuñu ñun leen comme ki góor la jigéen ngeen ñu war a jox mais ñoom bëgguñu ko

bi ñu trouvé solution nag ñu ne comme groupe parlementaire bi mënu ko jël nañu dem ci non inscrit yi ñun ci non inscrit la ñu bokk ñu ne waa ci biir non inscrit yi nag nañu seet quand même ku fa ëpp taxawaay donc taxawaay ñu laaj ñu ñu ne waaw comme ñun ñoo fa ëpp taxawaay ñu jox ñu joxe mais nag mu nekk lu am solo ci pur parce que CEDEAO ay dëkk yu bëri la te fu nekk tey tey ci diaspora bi dafa am sax xam nga vote buy am ñay Mali dañuy voté ñay Gambie dañuy voté ñay nek fenen ak fenen dañuy voté mais yow bo seetul ne pur euh, ki ñu fa représenter tout le temps fay dem mom sa yu demee ci dëkk yoyu parce que siège ba Abuja la nek euh, fële Nigéria mais ñom duñ dem fofu rek dañuy wër dëkk yëpp léeg-léeg ñu am séminaire fi léeg-léeg ñu am rencontre fële yaakaaro ne tay bëss bu demoon Mali am fa rencontre tout du toog au moins benn minutes 40 minutes woo Sénégal en tant que député du peuple parce que bul fàtte aussi député CDAO député pur dafa nekk aussi député askan voilà donc loolu moom fierté ci ñun. parce que dañuy signé ne député sax ko xam assemblée man di député même bu ma voté contre sax day parce que ñu donc dañuy yóbbu assemblée loolu du lay parce que ñëpp xam nañ nous lu ñu yóbbu assemblée donc loolu du lay li ñu bëggoon balay muy dem assemblée mais nit ñi xam la ca parce que yow nan ngay rek ci day am genn am genn juste trop jugement bi am war nañ léegi war délimiter surface yi fan la ñu Sénégal am ak lan la ci am bu ko defee mu nekk loo xam ne c'est factuel ñu teg ko nii ci table ji def cartographie bi wax ne yéen seen tracé yi fii la jaar lii ngeen ci am tant de mètre cube wala yooyu la la war a mun a doon yéen lii ngeen ci am ñëpp gis ko mu leer yow tant de pour cent ngay am man tant de pour cent mu jàmm ne ñooy parce que loolu mooy indi jàmm ji hein. mais boo bu ngeen toogee rek ne 50 pour cent cinquante pour cent ñu dem ba ci biir seet ne du 50 pour cent cinquante pour cent mais coow day am transparence mom mom lañu ñu bugg na mbir mi leer loolu la Idi laaj hein? ñu naan ko yow da nga xamul procédure eh, Idi dañ ko jàngal procédure yow nga nekk fi premier ministre nekk chef ministre yëpp nekkoon sax chef ki nekk euh, président de la république tey ñu lay wax naan xam nga affaire bi nu muy demee nu muy ne loolu matul sax nga nekk ministre pour xam ko ñëpp xam nañ ne boo négocier ak pays yow bala nga koy mën a ratifier yow président bala nga koy mën a ratifier barki barke dem rek la ñu woote ay ay convention yu bëri pour ñu ratifier ko ah balang koy ratifier da fay jaar assemblée assemblée jox cutisam yow nga promulguer ko ratifié ko lolou mom c'est c'est le ba du droit constitutionnel donc soxlo nga nekk ministre wala premier ministre donc amul luñ koy jangal mom d'autant plus que xam na ko moo dama ne mbir bi nañ ko def rek mu leer euh lo ne dafa nek digënté ñaari réew leer mo ci gën parce que ki nga xam mo fi nek tay ëllëg du fi nek loolu loolu ñëpp la ka nek Mauritanie tay ëllëg du fi nek te bu fekkee ne da ngeen def lu leerul ñagas ñagas rek lay indi ci diggante réew yi donc lu ñu def rek nañ ko def mu leer waaw kàddu bi ma leen di jox rek mooy euh, nañu fexe ba ñu jënd seeni carte parce que jënd seeni carte moo ñu bokk ci cellule yi fexe ba pure comme ni koy réclamer rek nekk parti bi gën a ëpp solo ci Sénégal te loolu dañ koy wax rek fu ñu ko waxee rek nit ñi commencé muñ xam nga ba waxee nit ñi muñ dañ naa kii lu muy wax nii

parti moy li tax mu jóg association la mais dafa nek association bi spéciale li tax mu jóg mo jël nguur gi nguur yi nak bari na président mu ngi ci député mu ngi ci ñun amna na am am di du noonu buñu élection parcelle de pouvoir bobu ñu am di voter ay loi du ko am du noonu collectivité locale yi nguur la aussi nek maire wala nek euh, conseil départemental lolu aussi pur soxla na ko donc du am ben élection boo xam ne dina ami Sénégal pur nekk fi te demu fa d'ailleurs loolu bu fekkee ne élection am na sax te pur demul nit ñi war duñu poser seen war duñu wax laata hein. yéen dem ngeen élection nekk quatrième de façon absolue nekk premier de façon relative élection am du ngeen fa dem loolu mooy lan xanaa bokk ay député rek ngeen soxla woon yéen woon ngeen ñu ne mun ngeen yore réew mi élection présidentielle jot na ngeen ne du ngeen fa dem ah loolu xaw na ñoo jaaxale euh, euh, population bay wax de loolu tax xalaatuñu bañ a dem élection